taalaa wa barakaatu mbokku réew mi tey jii nag ñu fas yéene rendre hommage ki nga xamante ni mooy jàmbaaru fàq tëdd gi ki nga xamante ni bu turam jubee rek boo ko déggee rek da nga naan eskay waajaa ngi noonu waajooju mooy kan Sidi Lamine Niass Kumba Abdallah ah waajooju moo liggéeyal ngir réewam waajooju moo def lu rëy ngir réewam 1984 ba muy sos li nga xamante ni moom mooy Walfadjri quotidien bi ba tey jii ñu nekk ci 2023 àdduna bi yëpp ngi fàttaliku jëmm jooje nga xamante ni dara ñoru ko lu dul diine ginnaaw diine dara ñoro ko lu dul taxawal réewam di taxaw ngir réewam lépp di jaar yoon kooku mooy kan Sidi Lamine Niass Kumba Abdallah ba mu ñu dëddoo ak léegi nag mi ngi toll ci juróomi at ñu ngi ñaan yàlla mii di buur di borom xare ko ci àjjana yi firdawsi 2018 la fi jóge woon decembre le mille décembre 2018 tey nag ñu ngi koy fas yéene màggal li nga xamante ni moom mooy le 4 décembre 2023 mu toll ci juróomi at ba mu fiy jóge ñëpp dañ doon wax naan Walfadjri de moom dafay nax saay ndaxte comme Sidi Lamine dem na Walfadjri day nax saay kenn ku nekk di taxaw ñii naan jaay leen ma Walfadjri ñi naan bëgg naa jël Walfadjri ñëpp naan ñëpp naan ñëpp naan ñëpp naan waaye wax dëgg yàlla ñu ngi sant yàlla tey ba mu ñu bàyyee la kii nga xamante ne moom mooy doomam si Cheikh Ahmed Tidiane Niass moo tax dañ naan doomu ñey boo koy ñaanal ñaanal ko gudd fan ndax bu guddee fan dina rëy Cheikh ñas nag doon na baayam macha allah depuis mu ñëw ci Walfajiri ba léegi waa Walfajiri jooyu ñu dara ndax macha allah lépp ngi jaar yoon Sidi Lamine Niass Kumba Abdallah dem na kenn dootu ko gis ilaa yow mi diini abada waaye li mu fi bàyyi mi ngi ni fi fàng rawatina la voix de san voix ak li nga xamante ni jàngal nañu ko ci yoonu siraatal mustaqim tey jii am na ñu bëri ñoo xamante ni bu ñu amee doom sax mu judd nekku góor ñu du ko turam bi nga xamante ni mooy turu Sidi Lamine Niass Koumba Abdallah fan si nekk ñoo xamante ni ñu fidèle lañ ci li nga xamante ni mooy Walfajiri FM rajo ak journaux guddeeg bëccëg saa su ne ñu ngi topp Walfajiri di ci def li nga xamante ni moom mooy seen doole di ci def li nga xamante ni moom mooy seen alal kon naan euh, Sidi Lamine ñas Kumba Abdallah juróomi at dèjà lu mu def ci biir suuf yàlla na suufu Léona Niassène sedd guy ci kawam yàlla xare ko ci àjjana yi firdaw si wal fajiri jëm ca kaw ca kanam ci lu baax ñi mu fi bàyyi ñëpp yàlla na ci yàlla teg loxoom te yàlla lu mu teg loxoom yaakaar naa ne jàmbi mënu ci dara kon nag sii Sidi Lamine Niass Kumba Abdallah dañ naan la yàlla na la yàlla xare ci àjjana yi firdaws yi dem nga manqué nga ñu waaye yàlla nag bu namee kenn du xëccoog moom yàlla mii di buur moo la jël te yàlla na yéex waaye kulli nafsin zaa'iqatul mawti képp koo xamante ne rek ñam nga dund rek jàppal ni bés dina ñëw nga ñam dee kon nag Sidi Lamine Niass Kumba Abdallah Sidi Lamine Niass Kumba Abdallah Sidi Lamine Niass Kumba Abdallah repose en paix yàlla na la yàlla xàll ci àjjana yi firdawsi jërëjëf